يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ginaaw ñu sante yàlla subhanahu wa taala di ñaan yàlla mu dolli xéewal ak mucc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu siwaat ci suñ jotaay yi ñu charee yi ñuy charaawee xadis yi nga xam ne dafa aju ci koor xadis bi ci njëkk bi ñu tàmbalee mooy xadisu anas ibni malikin qaal سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا ala على الصائم أنا سيدنا مالك نينا tukki naa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci koor falam yaayib saimu nee na am ñu woor am ñu wóorut waaye ñi wóorut ayibaluñu ñi wori ñi wori it wóoruñu ayibaluñu ñi nga xam ne ñoo woor maanaam kenn sikkalu ci sa moroom ñi woor sikkaluñu ñi worut ñi worut tamit ñu ñi wor manam hadith bi day tegtale ne kon tukki képp ku ci nek suñ borom subhanahu wa taala defal na la ak yombal pour nga mëna dok waye nak du force bu la nexé nga dok bu la nexé nga daldi di bo Bo gisé ni am ngay katan am nga kàttanu mëna wor ba do am su man nga wor bo gisé ni tukki bi mën naa metti ba doo mën a woor bu la neexee nga daal di dog euh, li waral dog bi nag wala li waral ruxsa yi mooy tukki bi ci boppam waaye du coono gi kon même boo amul coono sax nit ki am na droit dog bu fekkente tukki ngay def ci avion la nga xam ne man ngaa bañ am benn coono loolu it du tee bu la neexee nga daal di dog kon Euh, dagan dokkoor gi mi ngi aju ci tukki bi rek waaye ajuwut ci yëg coono wala ñàkk yëg coono waaye nag borom xam ne dañuy wax ne képp koo xam ne nag moom xam na ne nag moom bu wooree dana yëg coono gu méttee métti su boobaa moom dañuy xaraamal ci moom mu woor kon bi bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukki am ñoo xam ne dañoo àndoon ak moom woor woor gu metti lool ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko ko waxee mu daan ne ulaayikal wasaat mu ne ñooñ ñooy ñi mooy mu tuddee leen ay moykat ndax ñoom koor ga metti na lool ci ñoom te ñu continuer rek bañ a te suñ borom subhaanahu wa taala may leen ak yombal ngir ñu dog ñoom doguñu kon xadis bi day tegtale na kon ab tukki ci liy waral nit ki mën a dog ba jëmmi jamono loolu loolu ci la bokk beneen bi mu mooy ku feebar ku feebarit naka noonu mën naa dog ba wér daldi di bu fekkente ne yëg na ne biir feebar bi mën na koo boole koor gi te du ko wàññi la su boobaa mën naa woor euh, ki nga xam ne nag moom mënut dafa dem ba nekk màgget nga xam ne dafa tele kooku moom du woor waaye day leele day leele bis bu nekk day leel ak miskin ak mudd lu tolloog ay 563 cent grammes yu demee noonu jox ko loo xam ne mën na bu ko neexee it mu xool ñaata fan la dog bu fekkente ne weer yépp la mu dajale euh, mu dajale fanweeri miskin daal leen toggal ñam ñu daal di lekk loolu rot na ne euh, Anas ibn Malik radiyallahu anhu daana ko def kon yooyu yëpp mën naa nekk bu dee ko màgget nag koo xam ne dafa dem ba màgget ba naax nag ba àndutut ak xelam dafa naax kooku moom koor wàcc na ko du woor du lele du def dara la ndax ko kenn toggatu ko jëf suñ xadis bu ñaareel bi ci topp muy xadis عن معاذة بنت عبد الله العدوية قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر ولا نؤمر بقضاء السلام متفق عليه معاذة بنت عبد الله العدوية آه، التابعية له من لا سنيا عائشة نكو لن مو ما بال الحائض لن مو ورل جيجين جيس باخ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة دفاي فاي كورجي te du fay julli jigéen bu gisee baax du woor du julli waaye koor gi da koy fay julli gi nag du ko fay mu ne daal loolu lan moo ko waral suñu Aïcha ne ko axaruuriyatun anti ndax yow dangaa bokk ci ñooñu dëkk xaruura muy xawaarij yi nga xam ne ñoo wuute woon ak ak saxaaba yi nga xam ne dañoo toppoon seenum xel di di fiire di firee texte yi ci seenum xel ca bañ a bañ dellu ci dégginu saxaaba yi wuuteeg ñoom mu ne ko yow xanaa danga bokk ci ñooñu moo tax ngay laaj lii ndax dafa mel ne kuy jëfandikoo am xelam ci texte yi ne kon lan moo tax ñuy tàqale diggante koor ak julli di fay koor ca doo fay julli moom daal bëgg koo teg ci wàllum xel loolu la ci suñu yaay Aïcha déggee moo tax mu ne ko xaruuriyatul anti ndax da bokk ci ñooña muy xawaari yooyu nga xam ne eh, ñoom ci taxi yi ñoom seenum xel lañ cay demee wala loola bokk na ci li leen sànk mu ne ko lastu bi xaruuriya déedéet bokkuma ci ñooña bokkuma ci ci ña nga xam ne ñoo nekk dëkk boobu ñu naan xaruuraa mu ne waaye walaakin yi asal man day damay laaj rek ngir bëgg a xam mu ne ko loolu daal lii tontu li lu yomb la mooy kaana yusibuna zalik lii nga wax loolu daf ñu daan dal muy gis baax daf ñu daan dal ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa nu umaru bi qadaa sawm ñu ñuy digal ñuy fay koor wala nu umaru bi qadaa salaat ci kenn digaluñu bu ñu ñàkkee julli ñu fay ko kon daal mbir mi deesul wax lan moo tax lii lan moo tax lii waaye li ci am solo mooy lii daal moom lañ ñu digal kon dañ koy def lii digal duñu ko duñ ko def loolu mooy waaye ne kon sharia euh, kenn du ko kenn du ci demee ci sama xel la waaye mbir mi ay ndigal la ju bàyyi koo ci sa borom subhanahu wa suñ borom subhanahu wa taala mo sant jigen bu gisé bax du wor du julli moko santar yit ne ko bu bu weso mu fay mu fay koor ga moko digel yit bu weso mu baña fay julli ya kon lolu ay ndigal lay bàyyi ko suñ borom subhanahu wa taala bokk na it loolu ci yërmaane suñ borom subhanahu wa taala ndax bu ko bu ko bu ko fayloo woon li nga xam ne mooy julli ya loola dana nekk lu bari dana nekk lu metti loolu ci moom ndax baax weer wu nekk lay ñëw kon fekkante ne weer wu nekk li nga xam ne julli ko bu paree da koy continuer di ko fay loolu dana nekk lu diis kon loolu ci yombalu ci yombalu sharia la bokk euh, jigéen nag bu bu gisee baax ci bëccëgu koor même bu bëccëg bi même bu dog temee bay waaj jot sax mu gis baax bis boobu kor googu dañ koy annulé bis boobu day mel ne ko day day jàpp ne dog na bis boobu ba koor ga jeex mu fay ko bu gisee baax ci guddi gi bu bu setee ci guddi gi waa bu xëyee bis boobu bu ci topp da ko war a woor même bu fekkente ne diggante bi muy set ak diggante bi muy julli fajar bi ñuy nodd fajar dafa jege lool set na waaye sangoogut fajar dugg daa war a woor bis boobu daf koo war kon li ñuy jàpp rek mooy mooy set gi bu set gi amee lu jiitu fajar gi rek kon bis boobu di ñëw koor war na ko kon loolu jigéen ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax حديث بن يتلبي بن خمنا مرتب حديث بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ميك جم تي والو الاعتكاف الاعتكاف نك على اك جامو يالا لا غو خامني نيت كي داف كوي داف تي دي اك سخلا غومي داف تي جاكا دي اك نيك غوم فاي نيك دو فا لو خامني اب ادو muy loo xam ne lu muy lekk la lu muy naan fekkente ne amul ku koy indil ci jàkka ji mu génn di ko wuti wala eh, ay soxlay boppam lu jëm ci eh, eh, lu doomu aadama di soxla liy génn ci moom loola mën naa mën na koo génnee ci jàkka ja mu dem faj soxlaam daal di ñëwaat waaye lu dul soxla yooyu nag comme dem di seeti ku feebar wala di ànd néew bu faatu di di gunge néew yooyu yëpp daf koy wàcc dafa war a toog ci jàkka ji lu dul ci xaaju suñu yaay Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa bu ma sànni ak ci kaaf daaw dugg ci kër gi lu dul ab aajo boo xam ne ci aajo nit la loolu mu daan tax muy génn kon li itikaaf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ibnu Omar nee daf ka daan def bu fukki fukki guddi yi tàmbalee fukki guddi yi euh, yu mujj yi wala fukki fan yu mujj yi bu tàmbalee ci la yonent bi sallallahu alayhi daan daan tàmbalee li atikaaf ci fa nga xam ne mooy jàkkaam li atikaaf nag borom xam-xam yi ci ëpp nee danga war a dafa war a ànd ak koor kon li atikaaf moo koor ñooy ànd donte am na borom xam-xam yu wax ne itikaaf sax nit ki mën na koo def ci waxtu woo xam ne ci waxtu normal mu bëggale itikaaf ci jàkkate daal di waaye yonente bi sallallahu Alaihi wasallam daal mësul li itikaaf lu dul ne daa fekk mu woor dul ci koor kon loolu moo ciy sunna te ci jàkka lañ koy defee dee su ci kër wala ci feneen foo xam ne du jàkk li gën a wér daal mooy i'tikaaf jaamu yàlla la boo xam ne dafa aju ci jàkka ci jàkka la aju kon ci jàkka lañ koy defee loolu mooy ak jaamu yàlla al i'tikaaf mu nekk jaamu yàlla bu màgg nag boo xam ne nit ki bu ko defee day sori lépp loo xam ne du koy booleeg àdduna la jéema laabal xolam nag jëmale ko rekk ci suñu borom subhanahu wa jublu ci jaamu ko di zikr di jàng alquranu karim euh, mën naa liir it ay téere xam-xam diine loola du loo xam ne luy yàq itikaaf la moytu nag lépp loo xam ne mbiru àdduna la ak di ko waxtaane ak yu demee noonu loolu mooy itikaaf euh, الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين